mbégte gën a mag mi ñu yàndal ngir ànd ak yéen ci rajo Futur Média rawatina seen émission bii di xalaat ci suñu journal fait divers muy journal boo xamante ne si eh, xew-xewi jamono yi gën a doy waar réew mi moom la ñu fii moom la leen di dégtal. Mhm. yàlla sàkk du lundi au vendredi di ci ànd ak équipe bu yéeme. Mhm. abaa daan na fi teew wii la waxtu waaye comme la ma waxoon rek. Mhm. xol ñaar munu jaa dëkk naqar lay dem. bànneex ñëw wala bànneex dem naqar di comme jamono ji nag. dafa dafa nekk ci wutis ma fàttali ko. Hmm. magam ju jigéen moom Aba moo génn àdduna ci loolu la nekk jombul fii rek semaine prochaine danañu àndaat ak ñun. Hmm. ma ànd ak sama gars yi passe partout Mamadou Ndoye Bane. Mhm. maa ngi leen nuyu inspecteur. jaajëf maa ngi lay ziar sama waa ji jëlee bu baax di jaar passe partout di jaar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu ak fu ñu mënti yàlla li yàlla ne leen yàlla defal jàmm defal ñu ko defal ko waa réew mi defal ko sénégalais ak africain yenn bitim réew surtout euh, Sénégambi sénégalais yeeg gambien yeeg ñoom ñëpp. yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. ci gambien yi. ak ak Mauritanie waa Mauritanie di. ak waa Burkina Faso ñëpp africain yëpp. yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ni nit ñi def ci sutura. amiin Ndiaye. te Ndiaye dama bëgg nga revue de presse ma benn affaire. Ndoye Bane amul Facebook. <laughs> Mamadou Ndoye Bane boo leen gis ci Facebook bi du man. <laughs> Mamadou Ndoye Bane boo leen gis Facebook bi ci du man ngir yàlla ak yonent bi ñetti at a ngi nii awma Facebook. léegi ma laaj la yow kañ nga dégg damay revue de presse ay Facebook. waaw dimbali ma ci rek lu ne ngay revue de presse. <laughs> parce que loolu kay yomb na fexe ñu ñu la ko bindal rek ñu xool nuñ ci def. da nga dafa am ñuy nekk tudd ndooy baan di wax ak ay nit naan leen xalaas baa ngi nii danga ma benn femme xoma nangam. Hmm. waxal loo ci tontu mbaa. ah waxal de di dañ ciy bind tout temps naa. wax ji kay leer na amoo pa euh, compte Facebook loolu kay na ko ñëpp xam. non yàgg naa ko wax. kay jarul di bay revue de presse ak. non revue de presse ma ko ma dégg. waaw d'accord vas-y vas-y. nii nii nii waaw fii nii waaw. ah kon ma inventé di man du wax luñ bindul. daf ne gisuma ko ko bind. <laughs> wutal ko ko bind rek ba. yaay da nga may xeex. est-ce que Facebook bi du yow yaa ko yor sax <laughs> parce que ay ñett xaw ma ñeenti compte Facebook Mamadou Ndoye Bane du ma ci benn jël sama photo ak sama photo jabar def fa léegi bi am yoo xam ne sama photo la man kese du man aw ma Facebook aw ma Instagram aw ma la la ca des. Snap Snap la xaw ma xaw ma ko sax. amoo TikTok aw ma TikTok. du man man daal portable laa yor numéro 77 632 fa laa mën a yem ak la ca topp. 79 la jeexale nañu wër li ci digg bi. <laughs> lo euh, Passepartout maa ngi lay nuyu. jumaa mu Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziare. di nuyu Mbaye Ba nuyu auditeurs yëpp. Mhm. nuyu sama gars yi waa Fajar. ñëpp maa ngi di ziare Ndiaye man tamit am naa loo bëgg nga invité presse ma ko <laughs> lan la. Ndiaye. xalaas. Mhm. amul fay. amul fay boobu dama koo fàtte woon. xalaas amul fay. fay comme lan. par exemple comme ni am soxla xalaas. ñëw bëgg a jàll xalaas. dafay am ñoo xam ne dañuy woote. ci ay rajo ci ay rajo. di wax naan voilà foofu boo fa demee dañu leen fayeeku xalaas amul fay. ñu ne bu fi demee dañu leen di fayeeku dañu fay leen di est-ce que Aba fayeeku leen. <laughs> non non Aba jëlul sax xalaas bi. non Aba lu ne de. Aba day il faut mu leer. fii au par contre au sax. suñu ay moyens lañ ciy def par exemple tey jii bu bu fi kaa ñëwee tey transport yeeg crédit yi man yéen ñi yéen a ma koy jox. donc fii ku fi indi cas ñun ñoo ci def suñu ay moyens mais pas que ñun ñu lay fayee ko donc il faut que nit ñi ñu ñu serré un peu tuuti quoi di di di rafetal quoi tamit. parce que Sénégal feebar nañu feebar bi nga xam ne saay moo raw sax ba ci Chine loolu la la li ma ko doon wax nee naa ko Sénégal dafa dafa ñoo ngi Chine mais feebar bi fi am. Hmm. moo gën a garaaw bu Chine bi. ëpp naa wax lu leer na. non mais mais ah, mais mais Ndiaye c'est vrai il faut que tam ñu bàyyee ñu bàyyi yàqante bi quoi. yàq léegi dañuy dañuy yeewu fajar di liggéey di di mettre seen vie en danger. yow bi ngay nelaw ñoom ñu ngi dugg di liggéey xëy na pour sensibiliser. donc ñun dañ koy def te yàlla tax. man na xam nga damay doomi kaw kaw moo tax ñaar sama yox du neex. comme dañuy fay ko amul loo fay ñëw ku ku amul loo fayee. bul ñëw <laughs> mën naa jàll ci RFA. RFA lu mu wax. xam nga ne gaamu téléphone la boo xam ne. waaw jamono ji commercant yi ñu ngi may woowee fu nekk ñii di laaj fu ñu ko mën a amee pour jënd ko jaayaat ko. Hmm. ñii di wax ne xalaas tax na RFA ak qualité yi nekk téléphone bi. tax na hmm. Hmm. taxawul ci marché bi. mais te bu weesoo tey jii bu ngeen wutiwul Sense 2 Pro bi. gëm naa ne pour ngeen am ko dana jafe. quarante deux mille kese lay jar. Mhm. te nag du foofu donc Airfa. Mhm. Euh, dafa am Sense 2 Sense 2 Pro am na téléphone Airfa Halo 3 am na Halo 3 Pro. Mhm. mais Sense 2 Pro bi nga xam ne écran 6N la 16 giga de mémoire. batterie 3000 milliampères. Mm-hmm. duel sim ñaari carte sim lay jël. Mm-hmm. ñaari numéro mën ko cee def. Mm-hmm. connexion automatique mais 4G. caméra 13 mégapixels lii lépp ci téléphone la ñu jaay la ko 42000 garanti la ko 12 mois atu yàlla. ba noppi dafay am service après vente maanaam lu ciy kallaj kallaj wala loo ci comprendre rek. dama jox ko la ko jaayal ñoo la koy toppal. loolu mooy service après vente. dem leen wuti ko Colobane xuma et frère am na ko. démb amul lu ma waxul nit ñi ma booleek moom xuma nayoo de yaa ngi def social bu bari ñu bokk yow Touba xam naa ci dara. waa kër xaadi waa kër xaadim Rasoul ca kolobaan am nañ ko. kër xaadim télécom kolobaan am nañ ko si la multimédia service am nañu ko. Mhm. Badou Sakho. toj Sénégal am na ko waaw. toj Sénégal waaw moom ci deux voies ale Khalifa Bakar Sy. waaw waaw Grand Yoff Mor Ngom espace fun am na ko Touba mobile communication TMC am na ko. suba dinaa la wax ñi dëkk Pikine euh, parcelle ak ñi ko bëgg Sandaga fu ñu ko mën a amee. Mhm. perfect également. Mhm. kooku euh, li ñuy doon laaj mooy fu ko mën a amee boutique cosmétique boo dem laajal perfect men mhm. produit Uniparco cosmétique la. gamme spéciale conçu pour les sportifs ak les hommes euh, jigéen góor ñi nga xam ne dañuy dañuy perfect man la. Mhm. yokk sa po euh, sa forme. Mhm. ànd nag ñaari gel de douche benn mooy du gaaw a jeex ñaar mooy dafa baax. Mhm. ak ñetti eau de cologne. loolu lu complet perfect man. loolu na Ndiaye. ban place de l'Indépendance démb dafa neexoon. mel mi fii. en marchand ambulant ya fa ne di jaay. waaw dañoo jékki-jékki benn femme. bu su luy sa ñëw taxaw woo leen ni leen dugg leen ci restaurant bi ngeen añ li fi ne yëpp jënd naa ko booy ya fàq. déglul Ndiaye lii duma ko yeggali déglul. place de l'indépendance waaw benn resto benn femme daal moo fi moo fa ñëw ne ñëpp nañ ñëw tey dugg ci resto bi lekk moom mooy fay yaa ngi dégg ñu bëri daal di dugg ah euh, waaye ndekete yi daal femme bi wérul waaw à la fin daal xam ni la boss bi xool ko daal jàngat ay mbiram xam ni ndeketi femme bi wurul daanaka pare woon nañ pour joxe lekk yi mu commandé woon ak yëpp daal affaire yooyu noonu affaire bi nag juróom fi nga di coow ah. mu pare ne resto bi moom moo ko moom ah. indi fi ay coow yu bare bari bari bari waaw waaw waaw tey dugg ci resto bi rek ñëw ne na gaay yëpp ñëw lekk waaw. jënd na ko dégg ñun daal bi lañ taxaw place de l'Indépendance. ndeysaan benn ndaw jóge fële rek ne kaay leen lekk te bu leen fay. du ko Viviane doon waxee rek. mais ko euh, rompoy di café ñu dugg di añ. mun ma laaj plate ginaar entier. man nii. bi ma tàmbalee di laaj ginaaru entier. mu ne ma dama wool ma ay jaaykatu yére. ma jëndal dof bi yére. mu solu ba ma daw woo gaay ne daje na borom barke borom barke ñëw na nee na daal ku dugg rom doo fay te ndox pël ya ñëw mu jënd yére yëpp daal yëpp di yóbbu di ndox ba naka la ndaw sa amul lu mu fayee <laughs> rek ah, sama gaay na am na benn femme bu dugg fii ne ne ne ne tey añ gratuit la tey payé na ñëpp dugg kon automatiquement xam man élève doy baan la automatiquement dama ko ne sa waay li Viviane mas na g genre clip bu mel nii est-ce que lii na affaire yooyu moo tax man bi coow li action bi nii nii xamoon naa ni nii la nar a mujjee lii laa ko wax na ko Viviane jéewoon na lu mel ni dan lii mbaa na dan na ba noppi <laughs> yéen a waroon añ ba pare rek waaye an say bagage jom ah, na yow waaw indi yërëm yëre yi. vingt et un. ñaata yëre ak ay dàll. ay ay ay waajur moom moom tuba yi keneen moom la kos. keneen la yi mu ne ko peer yëpp. xoolal ma peer yi gën a rafet. mu ne ko xool nañ natt tànk waaj mu ne jarul na. peer yëpp laay jël. ëpp na quinze peer. mu ramassé mais ba jotuñu lekk non bala ñuy lekk kay la leen naar bi ne kii wóoluwuma ko so ay ñii waay gars yi dama commandé ginaar ñii ku ne commandé la ngay commandé li ci gën a garaaw jaaykatu yére ya newoon te mbedd ma mhm. mu woo leen ñoom it jënd seen yére yëpp jëndi leen indi indi daal yi dajale ba pare benn waaju fa nekkoon yoo xam ne xel mi neexul mu ne kenn na ko sang yére yi moom la ko jëndal te wérul ndekete wérul femme bi wérul ndekete embouteillage bu garaaw ca restaurant ba kay looy wax ni. waaw man kay li may digal naar ba sax tey ji ci àjjuma ji ba mu mu. moo démb la ko waroon joxe rek xam nga waru ko woon a jaay. Mm-hmm. waaw da waroon a def sarax tey sax. naar boobu na saraxi tey. mais loolu am na du ma tudd turu hôpital bi bu yàggul. waaw ku wérul est-ce que du même femme bi sax. ñëw fa ne leen day fay ordonnance yi. ñu naan ay ay Marème Faye ko yónni. dañoo gis rek vigile di ko gàddu yi génne. ah bu ngaa dégg loolu yéeme na bu ngaa dégg dëgg kon Ndiaye ni ñuy def mooy dañuy doxantu bu mbuur Famba ñëw na fii lu xew mbuur mbuur daal waa ji dafa yor këram di fa yar ay xar waaw am xaj yu koy gàddeel xar yi waaw ay nit guddi waaw ñu xar yi nag laalu ñu benn xar waaw waaye xaj xajam waaw la fees ko waaw jël ay organe dem ak moom naa leen ay xar lay yar xar yi di garde ay nit dugg fa guddi. rey xaj bi. fees xaj bi. dagg geen gaag poumon yaag faar yaag yooyu lañ ca soxla daal. niñ ko reyee daal jaaxal na ma man tamit. jaa rend wuñu xaj bi amul trasu deret amul dara dara dara dara dara. loolu kay ay njabar la. déglu nañ déglu waa ji. daa amoon euh, ñu introduire sama gàlle ci kaw terrasse bi j'avais des moutons là-bas ak deux chiens yoo xamante ne ñooy garde kër gi mais à ma triste surprise ba ñëwee. ils n'ont touché à rien ils ont pris seulement sama xaj bu góor bi ñu rey ko vivant ñu daal di koy fees écorché vivant jël ay parties intimes ci moom après ñu abandonné ko sama biir kër dem sans laisser de trace ni rien bu ma gisee affaire bi nag jaaxal na ma xaw ma ni def ba dugg sama kër ba yéeguñu ba def li ñuy def seen jëf ju ñaaw ji après donc j'ai jugé nécessaire waxal sama tons expliqué ko mu ne ma baa police ma demee police aussi war naa am vidéo bi ak photo bi bay fee ñu ne ma maintenant il faut écrire une plainte fii police su ko defee ñoom ñu mën bi léegi nag comme que lii nag cas bu grave te ki def nii xaj bi tracé ko si biir gàlle c'est dangereux pour notre sécurité kenn xamul la lañ soxla woon nit bés bu ñu soxlaa nit kër gi tamit on sait jamais est-ce que mënuñ ñoo def ñoom tamit moo tax c'est nécessaire de le partager avec vous. waaw ah, gis nga de partie yi ñu jël si moom nag bëri na dañ bañ koo feesee noonu yóbbu nañ kenn gi laal tuuti si pooj bi euh, damu faar yi jël ak poumon gauche bi yóbbu quoi ci boîte te man li ma ci gën a jaaxal mooy deret takku fi parce que y avait pas de goutte ci ci dër bi benn yoon. aussi tamit gisuma ko sax xoos xoositu der sax der bi sax dañ koy yóbbaale ñoom daal daal am benn xaajal ci parti bi daal lépp dañ ko leel yóbbu ko ak genn gi yëpp boo xoolee ci vidéo bi sax maa ngi koy zoom noonu nga gis osman bi affaire bu yéeme billaahi mun ma la wax ni kii la wala kee la ak nan lañu ko defee ak naka la te boo xoolee xaaj bi chaîne bi dafa mel ni pare dañ ko étranglé chaîne bi parce que koo bi mu ngi te man nag li ma gën a jaaxal ci affaire bi ci kaw y avait des la là-bas yaa ngi fa mais laal sax defu ko laal laalul xar yi defu leen dara ah, ah, baax na. ñu naan leen dañoo yeb waa Chine rek. nañ dem moom lii moom lii moom ban nuñ koy lijjante. ah noo koy lijjante noo koy lijjante njaay ñëpp sur si leen nekk ñëpp soo xëyee da ngay moytu moytu ba keroog tëdd jot sooy tëdd sax da ngay moytu. benn waaye neena ma ñi ci prison yi ñoo ñu gën a sécurité. bien sûr wax na dëgg wax na dëgg. dañ leen a ëpp liberté rek xam nga waxee dañ naan la la la baan waxati na. Mhm. nee naa la virus ba ca Chine. xam nga day dañ day wér léegi mu wér <laughs> waa Chine nekkaat ci jàmm. Mhm. ñun feebar bi nekk ñun ñun ñëpp dañoo judd fekk ko fi te dafa gën a garaaw defante yu bon defante yu ñaaw. waxante yu ñaaw waxante yu salte yu dégalaas moom ci dëkk bi feebar la boo xam ne moo gën a garaaw ba ci Chine ah, hmm. ah mais way mais way njaay yeri xaram. comme ni ma ko oustaz waxee chaque jour alal alal la koy garder. Mhm. loolu dëgg la mais tamit bëgg alalu nit ki ba tax nga koy fétis ak di ko njabar njabar yu bon moo fekk Mouhamed Ndiaye mu toog biir këram demul dikkul waxul kiiwul nga téye daal Ndiaye man vraiment. mais alal alal la koy garder baax na kii est-ce que na waaw. ah xa fuufa la rek. ah, ah. ñaaw na trop. xaj bi dinañ la ko jox nga dugal ko ci paas xalaas nga xool xaj bi dañ ko maanaam doon feesuñu ko ba mu kii de biir benn côté ci biir bi lañ fees. jël ci ay organes vivant lañ ko defee. vivant léegi après ki def loolu yowmal xiyaam war a gisee xaj bi. waaw. Ah, njaay daal moo tax déggu ma léegi la nga gis nit ku dee dee gu ñaaw. fekk liñ liñ dëkkee ci jamono la. njaay gis nga sunu de te bii ci topp nii. xale bu jigéen bii di wax. Hmm. ma nga bitim réew. Hmm. ba léegi mënul taxaw ni la kii mooy papaam yaayam résité ko. Hmm? ba muy nekk liir bebe ni pot lañ ko jël joxe ko ci benn kër. te dem topp benn waay ba waa ji takk ko. moom yaay ji moo def loolu. waaw xale bi màgg dem wëri yaayam. Hmm. dem kër yaayam. yaayam di ko fa torturer. di ko fa torturer ba mu jël ay bagaasam daw. ndaw si di expliquer histoire bi. Hmm. histoire bu gudd la. dañ leen ci ñamal ba leen di déglu. am naa léegi trente quatre ans mais lu jot kii sama àdduna bi daal rek ba ma amee juróom benn at ba léegi ci ay tumuranke rek laay dugg ci tumuranke rek laay nekk suba ak ngoon euh, depuis ba ma amee six ans sama maam bi jur bi sama yaay moom dafa génn àdduna léegi sama rakku sama magu maam ñëwoon ci dëj ba ma fa daal di ma récupéré ne kon moom moo may yaral boppam sama magu maam boobu moom doomam lañ ma tuddee ku ñu xam la ku ñu ràññeel aussi nag ci dëkk foofu noonu borom alal la te borom daraja la jëkkëram it même chose pour mu yar ma foofu téye ma foofu ci la tumuranke bu nekk daal dugg naa dóor na ma dóor suba door guddi dóor ngoon li ñu naan yaarlu waan rek lu reer tamit mooy ci këram googu noonu man mi la koy jiin mooy li ñuy wax naan ci yaarlu waan man mi la koy jiin turé na ma fa daal loo xam ne ba mujj si euh, ba ma nekkee aussi à la classe de euh, primaire ma toll foofu ci laa leen mosoon a euh, ci lañ ma laajoon école ba ne donné nom du père nom du mère yaa ma gën a xam des fois école dañ koy laajte ni ma ñëwee daal di bind turu sama jëkkëru yaay sama yaay fam keneen ku kay jenc ma bind kooku turam Lamine sax la tudd ma ne kooku mooy sama pap ba ma ñibbisee école ñoom ba ñu liiree kayit bi dañ ma jàpp doon ma kan la wax ne kii mooy sa baay. après affaire bi commencé nag di travailler sama bopp may xalaat naan man kii su nekkulee kon sama papa kan mooy sama papa dóor yi xaw ma sonal metti ma metti boo xam ne mujj si ma mujjee fàq dem di wër a wër a wër suñu kër. ban euh, fekk comme tollu naa te way ci seen te gëj naa fa ñoom xamatuma leen sax ma wër wër wër ba foofu ma laajte ba ma laajte it ba yegg ci kër ga ne jameet ma toog si buntu kër ga ba ma toogee noonu suñu buntu kër daal di yabal benn xale ne ko duggal nga ne ko aram de moom lay seet sama tante ba sama tante dugg see ñëw jël ma delloowaat ma ba ma delluwaatee ma fàkkaat ñibbisiwaat ba ba ñibbisee aussi ñoom it amatuñ ci waa pexe ñu téye ma mu jéem a téye foofu kër ga. ba ñoom sama tante yëpp daje ñuy waxtaan ci biir kër ga. benn euh, seen xarit daal ne kon moom doomu doomu la ak ñu ne ko de diw de juru ko Lamine moomu de juru ko. Euh, du papam papam Amadou lay tudd man noonu laa jotee xam sama turu papa ma tegeti waat foofu noonu bala ba di wëri sama kër yaay parce que man sama yaay musuma yar xaw ma ko woon sax daf ma damaa judd rek mu teg ma fa dem topp ji góor mooy jëkkëram jooju tey Lamine moomu bon man xaw ma sama papa ma xam tamit sama yaay ndax yaruma sama maam moom ma jotoon a yar te ba ma amee six ans daal la gaañu léegi nag ñuy dem di dem ba ma wër ñëw toog ci moom soxla woon amour boobu noonu sax au moins amour de mère wala amour de père mais moom it même chose gënale ma ak ay doom yi mu jur ak joojo jooju même chose su ma ñëwee mbëbës mbëbës bu malika boobu fa doon xëy suba teel mu yabaat ma foofu ma dem ma taxañe te daf ma doon exiger naa indi ñetti saaku mat su ma indiwulee ñetti saaku mat daf may dóor ndaal yi tamit su jeexee maa koy rooti rooti rooti def liggéeyu kër ga yépp su ma ko defee jee ba sama benn rakk bi tamit ma moom soo nañ ci xeex mu ñëw ne ma jànq bi jugal nga dem rooti xam nga rek xelu xale ñi xeex max moom ba sama yaay ñëwee daf ma dóor ne ma waa fii seen kër baay la yow sax génnal nga dem wëri ji sa baay ba mujj soosu euh, poste police bu caaroy laa nekk ma toog fa waa poste police ne ma yow lan la si guddi looy def fi man leen sama yaay moom a génnee kër ga sama kër baay te xaw ma sama baay ñoom ci boppam ñu ànd ak man ci benn oto ma won leen sama kër yaay ñu jël sama yaay laaj ko ne ko waaye yow xale bi nga ne pour mu génn fii nii du kër baayam fan mooy kër baayam mu ne ko baayam mi ngi Dakar policier yi ne ko kon Dakar ci fan ñu ngi koy posé question non ma maa ngi toog ci ban ba à côté mu ne ko baayam sax dee na. affaire à suivre la. le début de l'histoire lii mooy début bi. Ndiaye foofu nga koy yamale daal. waaw noonu ba ba. yaayam génne. ne ko demal wëri sa baay mu dem buntu police toog fa policier yi laaj ko loo fi def mun ko sama yaay moo ni ma naa wëri sama baay te xaw ma sama baay ñu woo yaay ji ne ko kii kii baayam mun leen xaw ma fan la dëkk jékki-jékki mu leen baayam sax dee na li ci des dinañ ko am lundi. mais gis nga njaay xale yi dund waxuma sax xale yi ndaw yi mais mag ñi dund lii lii nii. Mhm. ci dëkk bi di la déglu jamono ji kenn xamul mu toll. taw bërki dem benn waay daf ma woo ni moo am naa jabar ami doom. Mhm. su may ngénte lu ma gis sama waa kër papa mm-hmm, mm-hmm. sama waa kër yaay laay gis dañ ma koy xase man góor mu may metti di ko xase samay doom te sama yaay bëgg naa ko bëgg goo xam ni rus naa ko rus goo xam ni xaw ma nu ma koy laajee ni ko kan mooy sam papa mm-hmm. dara dara dara sam papa te dama bëgg nga dimbali ma ci mun ma lii ma lay wax nag waxuma la ko pour mu dem xalaas dama bëgg nga jàppale ma man ko jox ma sa numéro yaay man maa yaay ci waxtaan moom ku ku ndànk raay ko raay ko ba wax ko li ma ko bëgg wax billaahi ak àjjuma ji yaay ji wax ma turu papa ci papa ji mhm. wax ma ci yan condition la ko amee wax ma ba dëkk la dëkk ci Sénégal wax ma lépp tout ba instant bi maa ngi ci démarche yi pour lijjante bi papa ji fu ne dégg naa ci weewu béykat yi génn Sénégal dafa tukki mhm. école ba mu doon jànge année ba ña ko doon jàngal na mu bokkaloon classe ñëpp ñoo maa ngi ci piste yooyu pour retrouver bàyyi waa ji waa ji waa ji am na 36 ans. Mhm. nekk magum jëm am jabar ami doom. nee na dafa bëgg yaayam ñeewantal ko ba xamul lu muy. jàkkaarloo respect la sax kay. voilà mhm. respect la. respect la donc yaay yi dañoo war di gis nga erreur de jeunesse day am. Mhm. su ko yaay defee su ko papa defee day am mais jël seen responsabilité xamal doom ji kuy sa bàyyi. bu ko bu ko mënee xam su ko mënee xam. Mm-hmm. waaw parce que am na ci ñoo xam yoo xam ne day xaw a doy waar. Mm-hmm. mais su fekkee baay bi bàyyi la comme ñii rek nee diw mooy sa papa. Mm-hmm. biñ ma bi ma biñ ma trompé dafa bañoon ci nangam ak nangam nii la demee woon su demee bu nekk magum jëm parce que xale yi dañu am droit xam seen papa dañu am droit xam seen yaay te dëkk bi bari na lii dafa bari trop ñi nga xam dañ leen a nëbb seen papa ñii ñu nëbb leen seen yaay. ban waaw. paas waaw. bàyyi ci nag. aw ma Facebook président. Ndoye Bane amul Facebook. Europe collaboration de Carusan Soro du du président la République en période de la le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 bi sax ne premier <laughs> le palais fut la résidence officielle du gouverneur général depuis mu ñam ñamaat di xalaat ñamaat ñu xaar ba xam kii woote te bëgg a jot président de la république kooku kan la war a doon ak fan lay woote ci biir réew wala ci bitim réew salaamaaleykum kooku. ndeysaan ndeysaan bi de gaaw naa ñëwaat. mu ne. coupe du monde gaaw naa ñëwaat de coupe du monde bi mu cee rek léegi rek yàggut mu ñëwaat nii ci diggante bi France ko jógoon defe na yàggut dara dara dara coupe du monde bi ñëwaat ndeysaan suñu gaynde nag jàmbaar ren nañu jóg ñu pour tàggatoo ku Sénégal Sénégal sunu gaal ne leen am li kaay Suno kai dai da da la ta danga ga ke gara ma ta kana ta kana dai. Salam alaikum. Gorgi. Salam alaikum. Mani. Allo. Ndax yaa ngi may dégg. Allo Estandus. Dama ni. Estandus. Estandus boo moytuwul ma ngay dékki de ak ada. Estandus di liggéeyam neex na téléphone rek allo allo lekk pomme lekk banane lekk orange. tëdd télévisé e e e- la aywa. dama ni góor gi mi. allo waaw waaw waaw tëndis. yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. waxal sax bu woote gaaw ma wala ma coupé la. ah. waxal li tax nga woote. man kay loolu laa yëg moo tax ma woote coupe du monde bi ndekk ñëwaat na gaaw na de moom bi bi ko Faraas jëlee rek yàggul ah. di ko France jëlee rek yàggul ba ndax ndaxte daanaka ñu ngi koy jël ak ci ñaari weer rek la toll coupe du monde dellu si léegi nag Aliou Cissé ci demi boppam allo Standes. da maa ngi lay dégg de waxal li nga war a wax. Standes. sa temps léegi mu jeex. ah. une minute moo la dese une minute. man ma xam dara ci football nga naan xamoo dara ci football yow bu ci xamul dara ka yaa war a déglu maanaam eh, eh, Standes.